أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéwal te musal ko ñoo ngi tey ci ñaareelu tomb ñaareelu dars ci huudun alayhi salaam darsu tey inaadun wastikbaar dinañ ci jëlee dëgër bopp ak féttërlu gu nitu aat féttërlu woon dëgër bopp ci kanamu yonent bu màgg boobu tudd Huud alayhi salaam bépp effort boo xam ne Huud defoon na ko ci ci ñoom pour ñu jub min ajli hidayati qawmi illa annahum istakbaru bépp effort bu ab yonent war a taxawee wala ku baax war a taxawe ci njabootam ci fameem ci dëkkam ci këram yonent yàlla Huud def na ko pour ay nitam baax waaye ñoom nag ngand ngandalu nañ loolu nag sunna la ci sunna yàlla yi alayhis moom yàlla tabaraka wa taala jalla jalaaluhu sunnaam mooy doomu aadama yi ñi ci ëpp dañuy rëy rëy lu bu ñu leen di wax yàlla nee na ñi bëri ci doomu aadama yi yàlla nee na da leen di déranger bëgguñu dégg yàlla nee na mun nañoo dégg waxu ku nekk ba mu des waxu yàlla tabaraka wa taala wa rafadu an yaduuhum wahid minhum wattahamuhu bishafaha walkadib doomu aadama yi lànk nañ ne benn waay bu ñuy woo ba kenn nit di ñu woo moom daf ñoo gën loolu ngay dégg tey gënoo fi kenn yow rek xamoo yow rek jàngoo yow rek mënoo yow kenn rek nga taxaw naan ñu yàlla nee na ñun sax jàpp nañ ne waa ji yow mii da ngaa dof ñun sax jàpp nañ ne yow da ngay fen yàlla musta yónni nit yàlla yónniwu la ci ñun loolu la ko mbokkam yi tontu borom bi tabaraka wa taala di ñu xabaar loolu ci quraan di ñu ko wax ci suratul araf aya 66 borom bi nee na wa qaala almalau alladina kafaru min qawmihi inna la naraaka fi shafaha wa inna lanazunnuka min alkaadibin yow Huud benn mbooloo ci yéeféer yi ñu ne ñun daal yaama yaakaar ne yow da ngaa dof ndax yow noo mën a waxee ne yàllaa la yónni nan nga mën a ñëwee ci ñun nga bokk ci ñun nekk benn xale bu judd fii démb rek tey nga ñëw naan yàllaa la yónni inna la naraaka fi shafaha ñun yaakaar nañ ne yow da ngaa dof wa inna la nazunnuka min alkaasibin ñun sax ñëw jàpp nañ ne yow fenkat nga da ngay fen hakaza ayuha al ixwa mbokk yi juza fan bila tadbir wala tadlil gaa yi jàpp nañ ne ay xuraafaat jël mbir te loolu nga jël settantaloo ko xooloo ko balaa ngay jugé wala wax ji ngay wax amoo ci benn dalil ñoom lii ñu tuumaal Huud alayhi salaam ci tuumaal ko ne moom dafa dof mbokk yi settantaluñ ko ñaareel bi mooy amuñ ci benn dalil bu tax ñu mën a jàpp ne moom Huud dafa dof borom bi ba tey di ñu wax ci suratu araf aya 68 aya 67 borom bi ne qaala ya qawmi laysa bi shafaha ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين dañ ko ne da ngaa dof muy weddi mu ne yéen samay nit laysa bi safaha wallaay ndof amul ci man man de dofuma waaye li wóor day lii ma taxaw di wax naan yàllaa ma yónni loolu lu wér la walakinni rasulun min rabbil alamin man de yonent laa ndaw laa loo xam ne yàllaa ma tànn yónni ma su ma yàlla yónniwul woon ñemewumaa taxaw di fenal yàlla tabaraka wa taala man de yàllaa ma yónni pour ma jottali leen mission bi moom sama mission boroom ñaareel bi mooy man kenn laa koo xam ne dama leen di laaye biir te laaye biir gi ma leen di laaye biir aminun ku wóor laa ci mbokk yi xëccoo diggante dëgg ak fen lu yàgg la ci jamono diggante yonent yi ak seeni nit doomu aadama yi ñoo bindoo dëgg lañ bañ jaamu yàlla lañ lànk jamono ju nekk seytaan la ñuy bëgg a topp loolu moo tax saa yu yonent yàlla yu ñëwee wala saa yu nit yàlla yu ñëwee wala saa yu wootekat yu ñëwee naan yàlla nee na caaxaankat yi loolu da leen di lijjal foog ñu jéem koo gàllankoor laqad nafa an nafsihi ash-shafaha moom nuu huud taxaw na di dàqal boppam ndof gi ñu ko bëgg a adressé lan moo tax ñu ne dof la c'est parce que nit ñi dof may nañ ko indépendance liberté boo xam ne lu ko neex mu wax lu ko neex mu def mais nag dof li muy wax kenn du ko jël kenn du ko def lu mu mënta wax nag même bu waxee dëgg dof kenn du ko faale. ndeysaan benn cheikh ci Égypte dafay nekk ci bibliothèque bis bu nekk mu nekk ci benn bibliothèque bis bu nekk rek mu ngi ci bibliothèque lu mot 40 ans fanweeri at mais chaque jour chaque jour rek am na benn dof buy ñëw ci moom saa ay dof bi ñëwee rek mu daal di koy sarax juróomi dërëm dof bi dem ba mu mat fanweeri at chaque jour day ubbi toog di liir dof bi ñëw mu woo ko jox ko juróom dof bi dem ba benn bis rek mu jox mu ubbi dof bi ñëw mu jox ko juróom dof bi taxaw mu ne ko lan la dof bi mu ne ko damaa xam ne yow dangaa sonn mu ne ko lu ma sonal mu ne ko fanweeri at nga nekk fii rek toog fii rek di jàng rek lu sonnoo cheikh bi ne ko ah yow dangaa jàng lii lépp mu ne ko jàng naa ko bu yàgg cheikh bi ne ko ah yow moom yow jàngal nga ma tey ni téere yi yëpp jàngaleen mu ne waaw cheikh bi ne ko téere bi lu ci nekk mu ne ko téere bi ñu ngi lay wax kun jayyid kun jayyid mu ne ha xam ngeen loolu mooy lan mooy téere yi nee nañ nga baax nga baax kese nga baax dëgg mu génn dem yoonam dox boobu lu mu wax est-ce que du dëgg téere yi góor-góor di jàng fanweeri at yëpp lan lañ koy jàngal kun jayyid mu ne ko téere yi nee nañ nga baax baax mooy lan lan mooy baax lan mooy baax jàng leen baatu baax baat boobu benn baat la téere yi nee nañ nga baax alxuraan téere bi li muy màgg-màgg lan lay jàngale nga baax hadis yonent bi saa sallam li muy bari bari yëpp lan lay jàngale abubakar li mu wax lépp lu muy jàngale umar li mu wax yëpp lu muy jàngale gis na waaye góor googu moom jël na njëriñ ci li ko dof bi wax mais bu dee ñun fii dañuy reetaan xaaxata yéen da ngeen kilim wax kii de doful kii de doful loolu la ñuy wax mais doomu aadama yi ñoo jël programme képp ku leen bëgg a wax lu baax dëgg ñu ne kii dafa dof non kii dof la non bu ko bu ko toppatoo dof la dof la ñu daal di jàpp sa loxo dem ba doo déglu waa ji yonent yi lañ ko njëkk a wax waaye gis nga moom mu taxaw di dàqal boppam baatu dof la fi basaata wa sidqin mu koy wax ci ubbeeku mu koy wax ci dëgg kama nafa an nafsihi ad dalal biñ ne kii kon la dafa réer mu ne leen réeruma de ñu ne dafa dof mu ne dofuma de yàlla ma yónni wa qad kasafa lahum kama kasafa nuuhin min qabl an masdari risalatihi wa hadafiha wa an nusihi lahum fiha wa amanatihi fi tabligiha moom huut laaye la leen biir comme ni nuux laaye woon biir ay nitam bépp yonant bu ñëw li tàmbalee ci aadam ba yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam yonant bu ñëw bokk na ci li ngay def mooy da ngay laaye biir sa xeet boo ñëwee rek foog nga jaar tuuti nga jël expérience ci yonent yi fi jiitoon fi ñu jaar ni ñu doon waxeek seen nit nga daal ciy jël jéem a waxeek noonu say nit yow tamit wax na leen lan mooy njëriñu woote bi woote bi muy woote lan moo ci nekk yan jubluwaay moo ci nekk mu laayee bi leen biir ndénkaane gi ko yàlla wóolu woon mu jox leen ko wa qaala lahum zalika kulluhu fi mawaddati nusxi wa fi sidqil amin wax na leen loolu te bi mu leen koy wax mu ngi leen bëgg ndax ay mbokkam lañ ndax ay nitam lañ yàllaa ko yónni ci ñoom ndax nit ñi dégg li muy wax ñu dugg aljanna moo tax bi mu leen koy wax def leen ko wax ak mbëggeel waaye def leen ko wax ak dëggu waaye def leen ko wax ak wóor ñett yëpp boole na ko ci ndeysaan nit ñu baax ñi mbir mu nekk jéem nañ ko pour nit ñi texe nit yu baax yi yonent yi lépp lu ñu mënoon ci xam-xam lépp lu ñu mënoon ci pexe def nañ ko ndax nit ñi baax waaye nit ñi ñoo dëgër bopp xoolal jamono tey rek benn misaal bu ndaw laa leen di jox fii fii nii ñu toog bu fi bu fi Youssou Ndour ñëwoon fii ñu toog nu muy mel ndax dinañ fi xej duñ fi xej de mais xoolal lu tax fii feesul pourtant biñ jullee ba pare nee nañ dars dañuy def dars dañuy def dars de am na ñoo xam ne boo demee léegi fekk na ñuy seetaan équipe nationale ak Guinée ñuy football am ñoo xam ne léegi boo jàddee stade fekk leen ñuy seetaan contrat bu ñuy signé mbëru bëre pourtant fii lañ jullee timis ndeysaan waaye nag nii la de ndax aljanna moom yàlla nee na du fees yàlla safara la wax mooy fees aljanna moom mbokk yi du musa fees loolu moo tax place yi baax yi nii rek lay mel tuuti nit rek moo fi nekk tu tuuti nit rek tuuti tuuti tuuti waaye xam ngeen lu am solo xam ngeen lu am solo mooy ñun nañu fexe ba nekk ñun nañ fexe ba bokk ci tuuti yooyu di dugg aljanna loolu rek mooy wax ci est-ce que pare ngeen pour bokk ci ñu tuuti ñooñu mbokk yi wala budda an yakuna alqawmu qad ajibu kama ajaba qawmu nuhin min qablu min hadha alihtiyar wa min tilka alrisala فإذا هود يكرر لهم ما قاله نوح من قبل كأنما كلاهما روح واحد في شخصين aw ajibtum an jaakum zikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum borom bi tabaraka wa taala mu ne gaay ba leen huud waaree dañoo waaru dañoo waaru jommi comme ni nitu nuux waaroo woon jommi bi leen nuux waaree xoolal doomu aadama yi ndeysaan saa yoo taxawee ne yàlla nee na rek da ngay gis ku waaru yéen ngi ñu ne kii moo sob xool li muy wax mais am na ñu ko gën a nekk kilifa ci dëkk bi waxuñu lii mais am na ñu ko gën a jàng waxuñu lii mais am na ñu ko gën a xam waxuñu lii ah mais kii kii mais kii dafay xaru rek yenn saa yi nga dégg ko wax loolu mais kii kii kii dafa dof gis nga wallahi démb ak tey benn la li tax jàng alquran di yokk nit ngëm yàlla mooy soo jàngee alquran xissa yonent yépp da ngay gis ne nit ñi li ñuy wax léegi moom la nit yonent yi doon wax xoolal ni yàlla yonent bu yàlla yónni mu ñëw di wax nit ñi waaru lan moo leen waar parce que kii nee na yonent laa yàllaa ma yónni rek nit ñi waaru nañ ci lool yow yow yonent nga yàlla moo la yónni moom moom wut muy baamtu ba mu leen ne yonent laa yàlla mu yónni dafa taxaw di baamtu la nuux doon wax ni tamit mu leen koy baamtul ndax ñu xam ne moom yonent la yàllaa ko yónni mu mel ne ñaari nit ñu bokk mbalk mu ñu rootee ñaari nit bu ñu bokkee robinet bu ñu rootee ndax seen ndox mi dina am wuute bu benn jigéen toggee añ mu yekkal ñaari nit ci añ bi ndax ñoom ñaar dinañ bokk añ dinañ seen añ dina wuute du wuute benn yoon lépp benn lay nekk ndax ñoom ñaar ñoo bokk fu ñu rootee nuux ak huut ñoo bokk fu ñu rootee loolu moo tax li huut di wax loolu la nuux waxoon bi gaa yi waaroo ne kii dafa dof comme nit nuux yi ni ñu ko defee woon alxuraan wàcc borom bi ne aw ajibtum ndax yéen da ngeen di waaru lan moo leen waar an jaakum zikrum min rabbikum benn téere bu yàlla wàcce jox ko benn yonent pour yonent boobu na ñëw jàngal leen téere bi waar leen yonent boobu ñëw di wax waxu yàlla ngeen waaru ndax loolu war nit war na cee waaru ala rajulin minkum li yunzirakum bu fekkoon ne sax waa ji xamu leen ko dafa jóg wàcce kaw asamaan wala dafa génn ci biir suuf wala étranger la yéen da ngeen a weex moom mu ñuul wala yéen ngeen ñuul moom mu weex su ñëwee ngeen war a waaru ah ñun de ñu weex lañ waaye yàlla dafa jékki-jékki rek yónni ñun ci ku ñuul mu am ay laaf di naaw mu am benn tànk am benn bët mu ñëw ne yàlla ma yónni su boobaa nit ñi war nañoo mën a waaru mais ki nga xam ne yaayam ak papaam fii fii ci dëkk bi lañ dëkk kinkilibaa lay ndékkee cere lay reere ceebu jën lay añee fii la nekk xale ci yéen fii la màgg ngeen xam ko yàlla baaxal ko jox ko téere mu taxaw waaraate wax lu ne weng loo xam ne kenn mënu koo dindi loolu dëgg-dëgg jarul waar ba naan ko yow kañ nga fi juddu kañ nga fi màgg kañ nga fi jàng ñetti kaña yooyu ñoo ñu taaraleel ñun waa Sénégal ñetti kaña kaña nga fi juddu kaña nga fi jàng kañ nga fi màgg soo taxawee wax yàlla nee na rek ñu ne moom yow kañ nga juddu yow sax yow sax kañ nga fi jàng yow sax ah kañ nga fi màgg ba bëgg ñu ne yàlla nee na xoolal ñun say baay la ñu am boo amee looy wax na nga dem ci biti waaw léeg-léeg nga dégg ñu la wax loolu ndeysaan mbokk yi innaha daawatun xaalisa woote bi huddi woote woote bu sell la woote boo xam ne bu dëggu la ndax ci yàlla la bàyyeekoo wa yubaadiru huud li yuwaddiha li qawmihi annaha daawatun xaalisa fa laysa min waraiha hadaf wa ma yatlubu ala nushi walhidayati ajran ndeysaan nuux bi gaa yi ne dafa dof commencé di ko tuumaal léeg-léeg wallahi mbokk yi li ma leen di wax nii gis ngeen tey jii sunu dëkk bi dafa mel ni dëkk yi yonent yi doon ñëw démb gis nga nuux nuux bi mu commencé di wax dafa gaaw profito di leeral ne man li tax may woote yàlla rek a tax dara taxul dara nekkul sama ginnaaw da ngay dégg ñu ne ñu ne non ñii ñii ñii dafa am ñu nekk seen ginnaaw dafa am ñu leen di financé ñaata nga dégg am na ñu naan noonu arabe yi ñoo financé jàkk ji quoi non gars yi am na benn waaye bu doon wax ci loolu ba mu ne ñoo ñii Buxaari ak muslim ñoo leen di financé doo dégg ku wax ba pare rek danaan Buxaari wala mu ne muslim ñaar ñoo ñoo leen di financé ñu ngi Arabie Saoudite ñoo bëri xaalis lañ ay milliardaire lañ Buxaari ak muslim ndax ñàkk xam quoi gis nga xut bi mu commencé rek dafa gaaw commencé di leeral na mbokk yi sama wax ji may wax dara nekkul ci ginnaaw laaya biir bi ma leen di laaya biir soxlawuma ci dara lu dul ngeen jub dem ci yàlla wala fi nee nañ ku leen a sangul ku leen a sangul ku leen a sangul dafa bëgg sa sa taar la bëgg dafa bëgg nga set mais ku leen a sangul nga ni ko sanguwuma nga toog bañ a sangu koo ko def sa bopp mu ne innama ajruhu ala allah allazi xalaqahu wa huwa bihi kafil mu ne bu leen yaakaar ne lii ma leen di waar nii damaa bëgg ngeen génne seeni poos jox ma li fi nekk gis nga ñun waa Sénégal tàmm nañ te boo doon def conférence wala nga génn ci jumaa di waaraate rek da ngay gis gars yi commencé ñëw ku nekk di la jox ñaar dërëm ñii juróomi dërëm ñii ñaar parce que ñoom jàpp nañ ne kuy waaraate da ngay yelwaan fépp na laa la wax boo ba jullee jumaa ba pare nga jóg di bayaan da ngay gis ku ñëw am am am même conférence da ngay gis table bi ni kenn jékki-jékki rek ñëw daal di indi wekkitam teg ñoom jàpp nañ ne yelwaankat yi waaraatekat yi dañuy yelwaan moo tax ñuy waaraate amuñu dara moo tax ñuy waaraate moo tax yonent yi bu ñu commencé lu ñuy njëkk a wax nit ñi yaa qawmi laa asalukum alayhi ajaran in ajriya illa ala allahi allazi fatarani afala taaqiluun ee yéen samay nit lii may wax laaju ma leen ci fay man yàllaa may fay yàlla mi nga xam ne moo ma bind lu tere ngeen am xel xam ne man yalwaanuma lii may wax damay waar dama leen di wax dëgg pour ngeen jël dëgg gi ngeen jëfe ko ngeen dee dugg aljanna mais nit ñi jàpp nañ ne saa yooyu waaraate rek da ngay yalwaan loolu moo tax dafa jeet dafa jaadu ci waaraatekat luñ la indil nga delloo mais chaque jour buy jël xaalisu nit ñi bu yàggee dootoo wax dëgg loolu war nga gis ci ci daaw bi tey mu am ay déviation koo xam ne day wax dëgg dëgg di wax di wax ba càgg rek mu daal di jant c'est parce que am ay nit a koy woon naan ko ñun say fans lañ ñun dañ la fan ñun dañ la bëgg yenn saa yi ñu invité la nga lekk yàpp yenn saa yi ngay dem ñu jox la passe dix mille bu yàggee ngay sedd di sedd ba dootoo wax nit ñi dëggu yàlla bi loolu tey dafa am lan lañ yàlla musal ixwaani wa huna tashuru anna qawluhu la asalukum alayhi ajar kaana binaan ala ittihamin lahu aw talmihun bi annahu yabtagi ajaran aw kasbi maalin aw min warai daawa allati yaduha gis nga baat bi nga dégg yàlla mu ne laaju ma leen ci woo bi ma leen di woo fay da ngay dégg muy dégager ay tuuma yuñ ko tuumaal bu koy dàq ndax ñu bañ a xam ne lii muy wax bëggul li nekk ci poosu nit ñi moo tax muy wax gis nga tey dafa bëri soo jëloon téeméeri conférencier ci Sénégal 90 yëpp li tax ñuy wax mooy bëgg poosu li nekk ci poosu nit ñi. gis nga li tax suñu sëriñ yi duñu waaraate xalif général yeeg ñëpp li tax duñu waaraate mooy li nekk ci poosu nit ñi lañ soxla wala duñu waaraate duñu wax dëgg bi taalibi boo wax ñaari yoon dëgg. mu ñëw indi la àddiyee nga ni ko foo ko jële mbaa du riba mbaa du dorog mbaa njaaloo woo ko soo léegi naa sam kii day tàng tàngul dootuma dootuñu demati te loolu moo jaadu de mais kenn dootul wax dëgg Sénégal ndax xaaj poñet poñetu àdduna moo tax réew mi mel nii nit ñi nekk ci caaxaan di fo tegu ziyaar yeeg gàmmu yu jotee ñëpp dem te bu fajar jotee kenn du julli si jàkk kenn du julli si jàkk ñooñ ñooñu di dem ci yooyu yëpp koñ yi judd seen ilimaan jàkk yi xamu leen wallahi bëri na ci ku dem ci ay distance di ziyaare ji kilifa ga di joxe ji dara koñ ba nga dëkk waa jàkk ji xamuñu la mosoo dugg jàkk ba loolu nag ban diine la di ndax sa bopp rek boo dee jëm safara ixwaan yi nuux mu ngi ni ta duhur alayhi salaam mi ngi ni taxaw di dàq ay mbir yu nga xam ne dafa yaakaar ne gars yi moom lañ ko tuumaal ba ñu bañ ko wiis yaakaar ne yambaxi ajaran day fa ut fay aw kas bi maal wala alal la bëgg min wara i daawa ci woote bi muy woo alal la ci soxla moo tax muy woo nit ñi bëgg nit ñi ñëw nekk ay taalibeem di ko bayal ay toolam wala di ko indil ay kat-kat wala di ko indil ay ceeb wala di ko indil diwlin moo tax huut taxaw di dàq loolu moo tax mu ne leen afala taaqiluun lu tax du ngeen am xel xam ne man laajuma leen xaalis dama leen wax jaamu leen yàlla laajuma leen xaalis dama leen ne bu ngeen déggatee nodd yeewu leen ngeen julli ci dama leen ne ngeen bàyyi nangam dama leen ne ngeen bàyyi nangam dama leen ne yàlla nee na ngeen def lii loolu laa leen wax waxuma leen leneen ku la wax lii lu ci teg lu dul lim la wax lu baax la boo jógee nga def mu ne jarul ngeen di waaru man kenn laa koo xam ne xam ngeen ma xam ngeen samay baay xam ngeen samay maam xam ngeen samay mbokk wallahu allazi arsalahu huwa arrazaq allazi yarzuqu haulaai alfuqara yàlla mi nga xam ne moo ma bind moo ma yónni mooy wërsagalaate kon man su ma bëggee alal ci yàlla moomu laay dem ndax ñii di joxe kan moo leen jox yàlla kon man duma leen laaj su ma soxlaa ci yàlla laay dem wa hada huwa sa'nu rusul wal anbiya jami'an wa hum la yuriduna dunyan wala jahan wala wizara wa innama hadafuhum awhad wal asma wa an ya'khudhu bi aydi nas jami'an ila ibadati llahi azza wa jalla allahu akbar mbokk yi lii mooy mbiru yonent yi alayhimu salaam ñoom ñëpp nag yonent yëpp lii mooy seen mbir jamian ñoom ñëpp fa hum laa yuriduna dunya woo bi ñuy woon ñu bëgguñ ci àdduna misaal bi jël leen yonent yàlla muhammad keroog bi ko waa màkka ne boo bëggee am daraja ñu jox la caabi kaaba gi soo bëggee xaalis ñu dajaleel la soo bëggee nekk buur ñu def la buur lan la wax wallahi ya am la waadoo sams ala yamini walqamar ala yasaari ala an ada hada al amr lan la wax du ma ko def mukk bu ngeen ma joxoon alal lépp pour ma bàyyi mbir mii du ma ko def lu dul rek yàlla alag ma wala yàlla def lu mu bëgg kon loolu muy mbir mi yonent yëpp nag waaraate bu ñuy waaraate di wax nit ñi bëgguñ ci àdduna wala jaahan bëgguñ ci daraja génn ñu leen di jàppal seen dàll dafa leen ni tiima leen presol su ñëwee ñu ne xaajal leen ja pus leen pus leen déedéet du loolu la ci yonent yi nam wala wisaara bëgguñ ci ndomba tànk pour ñu def leen ministre wala am ngeen ay duaat yoo xam ne tey dañoo défendre ay xërëm ba ñu leen def leen ay ministre wala loolu amul ma ni am ngeen ay duaat tey ci Sénégal ñoo xam ne dañoo défendre ay caaxaan ba ñu takkal leen ay ndomba tànk danan yàlla musal wa innama hadafahum al awhad wal asma huwa an yaaxuzu bi aydi nnas jamian ila ibadati llahi azza wa jal lan mooy jubluwaayu yonent yàlla yi ci seen woote mooy benn kese la mooy ñu jàpp ci loxo nit ñi jëme leen ci yàlla tabaraka wa taala loolu kese mooy mooy jubluwaayu wootekat yi ci yoonu yàlla tabaraka wa taala wa ha huwa Hud alayhi salaam yuzakkiruhum bi ni'amillahi jalla wa ala Hud a ngi nii di leen fàttali xéewal yi leen yàlla defal wa bada'a Hud alayhi salaam yuxaatibu uqulahum wa qulubahum wa yuzakkiruhum bi ni'amillahi alayhim Hud tàmbali léegi bàyyi na nopp yi waxatul ak nopp yi ndax yenn saa yi nga gis waaju am nopp nopp pour lan la pour dégg soo déggee soo déggee boo déggee jeex na amoo looy def jëfe léegi nag comme ñoom dégg nañ jëfewuñ nuux bàyyi na nopp yi muy waxal nuux mi ngi wax ak xel yi xel yi ndeysaan ma nga ca xel ya pour xel yi xelu xam lan mooy jubluwaayu dikk doomu aadama ci suuf xam ngeen ne lopp munu loolu nopp munu ci dara pour nga xam lan mooy sa jubluwaay lu tax yàlla bind la lu tax yàlla indi la fii ci kaw suuf jubluwaay bi lan la loolu du nopp loolu xel la da ngay tëdd guddi nga jóg ci sa kaw la jóg toog waa man bi ma yàlla bindee ba léegi waa man sama diine fan laa ci toll man alxuraan ñaata saar laa ci mokkal ah sama julli gi ni ma koy jullee ndax nii la ah xel Hud commencé wax ak xel yi ba ci yàgg mu commencé wax ak xol yi xol yi mu leen di fàttali xéewal gi leen yàlla defal xéewal googu nga xam ne kenn mënu koo takk kenn mënu koo lim ba mu jeex waaye ku leen defal bët ngay xool est-ce que mus ngaa fay boo tëddoon guddi ñu ne la balaa ngay tëdd da ngay fay nag ku la may nopp est-ce que mus ngaa fay nu commencé ci loolu pour gars yi xam li leen yàlla defal ñu bëri bëri dañu yaakaar ne bu ñu amul xaalis ak yàlla mayu leen dara marab am na sénégalais sax yoo xam ne boo leen ne allo ça va ñu ne sénégalaisement koo dégg mu ne sénégalaisement rek mooy mooy doxul baaxul te pourtant kooku naan la sénégalaisement feebarul dara jotu bët yi alhamdulilah nopp yi gémmiñ gi tànk yi loxo yi dara dalu ko mi ngi dem di ñëw xam nga lan moo tax mu ne sénégalaisement dafa yeewu rek amul 100 francs yu mu jëndee Marlboro mu ne sénégalaisement jeex na mbokk yi Hud alayhi salaam fàttali leen xéewal yi leen yàlla defal mbokk yi yàlla daf ñoo defal ay xéewal yu dul jeex suñ ko doon compter wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha fii ñu toog rek ku nekk xoolal sa bopp balaa ngay dem ci lenn bokk na ci li tax nit ñi du ñu jëriñu mooy boo leen laajee benn question dañuy dem ci mbedd mi di ko wëri boo ne xéewal yu yàlla nga dikk na man xéewal man amaguma oto takkaguma jabar awma kër liggéeyaguma awma salaire amaguma xéewal déedéet bul dugg foofu xoolal sa bopp xoolal sa bët yi xoolal sa nopp yi li tax may wax ngeen toog fii ngeen di dégg dafa neex mais bu ngeen déggul woon li ngeen jóg dem loolu xéewal la xoolal ngelaw li ñuy noyyi oxygène pur loo fay loolu du xéewal bokk na ci xi nga tiim lekk lekk mu rees nga bëgg koo génne dem génne ko amul benn problème imagine boo lekkoon ba pare nga mu bëgg génne ñu ne la foog nga fay am na ñoo xam ne ndeysaan dañuy feebar dem hôpital bëgg saw rek ñu ne indi 300000 kaas nga teg su say mbokk amul ñu ne dem leen ngeen indi ji 300000 ngeen ñëw bu ngeen ko indiwul duñ ko laal pour waa ji pour mu saw am ñoo xam ne pour mu dem àll ba xoolal am na xale yoo xam dañuy seere dañ naan la demal nga jënd saabu nga def ko ci ginnaawam demal nga jënd demal fooy mujj nga dem ordonnance jënd ordonnance pour dem àll ba. dem jëndi ordonnance pour saw kon am na lu ñu yàlla defal de wa in tawdu ni'matallahi la tuhsuha hud ne leen wazkuru iz ja'alakum khulafa min ba'di qawmi nuh wa zaadakum fil khalqi bastatan fazkuru ala allahi la'allakum tuflihun mbokk yi Hud nee na ay mbokkam fàttaliku leen ba leen yàlla defee ngeen wuutu nitu nuux yi ay nit ñoo fi nekkoon doon mooy yàlla doon caaxaan di fo di fecc ak cëppi cëppee ko tëb yàlla rey leen ndax lu bon liñ fi nekkee yéen yàlla daal leen di indi ram ngeen remplacer ñooñu ndax loolu du xéewal kon fàttaliku leen xéewal yooyu yàlla bi mu leen indee ba pare mu may leen kàttan ngeen am doole mu ne leen fàttaliku leen may yi leen yàlla may ndax ngeen texe laallakum tuflihun fa laqad kaana min xaqi hada hada al istixlaaf wa hadihi al quwa wal batsha an tastawjiba sukru niam wal xazar min al batr wal kufr nee na xéewal yooyu yàlla defal leen lan lañ ci woon waroon jële ñoom ci comme xéewal ci comme cant mooy ñu sant xéewalu yàlla ñu moytandiku ci weddi yàlla ñu moytandiku ci kiifir wa ha huwa yuzakkiruhum maratan uxra bi ni'amillahi kama axbara zalika alxaq jalla wa ala atabnuuna bi kulli ri'in aaya تعبسون وتن وتتخذون مسانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعملون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم mbokk yi borom bi tabaraka wa taala mu ne nañu fàttaliku keroog ba huut doon fàttali mbokk mi xéewal yi leen yàlla defal ba tey ñoom bokkoon nañ ci xéewal yi leen yàlla may dañoo am alal ba ku ci tabax dafa bëgg saa yu tabaxee ba pare nit ñi buñ ñëwee bu kenn dem na ñëpp taxaw waaru ci tabax bi moom la moom ngay gis tey suñu liñ nekkee léeg-léeg nga gis benn waaye jàpp këram ba boo rombee nii rek foog nga taxaw tëb tëb tëb tëb tëb ñoom noonu lañ meloon atabnuuna bi kulli riin aaya bëgguñu kenn romb rek lu dul nga taxaw seetaan liñ def ci ay fantasie ak ay ñàngal ak ay karaj karaj ak ah loolu lañ doon def ñaareel bi bokk na ci li leen yàlla ŋàññee wa tattaxisuuna masania laallakum taxluduun ñu jël ay sato tata ko defar ko xereñal ko ba jàpp ne ñoom dootuñu dee dundal àdduna bàyyi àllaaxira bokk na ci li leen yàlla ŋaañee ñetteelu bakkaar yi wa isa batashtum batashtum jabbaarin gis nga bu ñu amee nit problème ba jàpp ko bu ñu bàyyee waa ji dootul amati njëriñ ndax dañ koy tas bu doon oto la ñu ne dañ koy tas pièce détachée borom bi ne leen fattaqullaha ragal leen yàlla xaafullaha watruku hadihi al afaali wa atiu amri ragal leen yàlla jégg leen yàlla li mu wax man huut seen yonent topp leen ma balaa yàlla di leen mere di leen alak mu fàttali moom huut li mu xam li ko yàlla yónni mes mission bi waaye gars yi daal di taxaw ci kanamam rek nekk ay bandi mu wax ba sonn fàttali leen lépp lu xewoon démb ci ay yonantu yàlla yónni woon ci ay nit yu lànk woote yàlla ay nit yu dëgër bopp ci seen kanamu yonent lan mooy résultat bi lépp mu wax yàq bi ñu yàq alal lu amul benn njëriñ ak di jéem a jaay doole ak ngand ngandlu yépp mu ne leen amul benn njëriñ ci kanamu yàlla tabaraka wa taala mu ne leen sant leen xéewal yi leen yàlla defal wattaqu llazi amaddakum bima taamaluun amaddakum bi anaamin wa banin wa jannatin wa uyun inni axaafu alaykum azaba yawmin azim ngallawaay ragal leen waajooju nga xam ne moo leen may lépp lu ngeen am lépp lu ngeen xam moom moo leen ko defal moo leen may jur bu ne gàññ gu dul jeex ngeen di xéewalu ci jur yooyu di lekk yàpp bi di naan meew mi di sol der yi der bi ngeen koy sol yàlla moom moo leen may ay doom yu góor ak yu jigéen yu ne gàññ yàlla moom moo leen defal jardin yoo xam ne ku ko gis rek kontaan yàlla moom moo leen may seen montagne yi ndox bënn ci ndox mi di daw partout seen dëkk yéen waa aat gën a nëtëx ci dëkk yi xéewal yooyu yépp yàlla defal leen ko pour ñu sant yàlla mën koo jaamu mbokk yi xuut ku xëroon la pour ay nitam jaamu yàlla ku xëroon la moom xuut tiital leen moom hu tiital na leen ci mbugalum yàlla su ma yuxawifuhum azaba yawmin azim ba mu gisee ne fàttali nit ñi xéewalu yàlla bi amalu leen benn njëriñ mu tàmbali di leen tiital xam nga wootekat yi chaque jour yàlla ñaari méthode la leen di jox am na ñoo xam ne boo dajee ak ñoom bashir ngay nekk am na ñoo xam ne boo dajee ak ñoom looy nekk nazir da nga leen di xupp puisque ñii kat naan leen ah pourtant gis ngeen stade yi ngeen nekk combat yi bu ngeen bàyyee da ngeen dugg àjjana dañ naan waaw dañ leen dañuy xoolante daal lay rob mais boo leen ne gis ngeen yéen wóor na yàlla jahannam mu ngi leen di xaar dem leen rek yéen ngi ne non dafal ndànk nag gis nga xaar waaw am na ñoo xam ne noonu la ba mu xoolee ne ñiy fàttali leen xiwal leen yàlla defal amul benn njëriñ ci ñoom mu tàmbali di leen xupp waaye ci xupp bi yëpp ndeysaan moom ku baax la fii suratil isfiq isfaq dafa dafa lewet ba bu leen koy wax sax ndànk la leen koy waxee alayhim min zalika al azab ndax moom xam ne mbugal moom nu mu mettee moo tax su leen koy wax la leen koy waxee ndànk ndax bëgg leen fa huwa axuhum seen mbokk la wa huwa wahidun minhum kenn la ci ñoom wa huwa harisun alla yahillu bihim azaba zalika al yawmi allazi la shakka fii ndeysaan wax ji mu ngi nekk ci zilalul quran waxu sayid qutb rahimahullah benn waay la wut benn waay la ci ay mbokkam mu ngi leen di wax waxu ku xër koo xam ne bëggul ay mbokkam mbugal wàcc ci ñoom kan moo bëgg Sénégal yàlla mbugal leen kenn bëggu ko ndax lépp suñu lépp fii lañ ko am suñuy maam suñuy ndey suñuy baay suñuy soxna suñuy doom suñuy sët suñuy xarit suñuy dëkkandoo suñu am suñu lépp fii la kon kenn du bëgg yàlla mbugal sa xeet kenn bëgg ko ay nag mbigal mbirum yàlla moom bu dikkee kenn mënatu ci dara wa haa huwa yaxudduhum ala tawba gis ngeen mu leen di xëcc di leen soññ pour ñu tuub wal istighfar ak jéggulu bal waaxasa hud alayhi salaam yut'imuhum bil mazid min an-ni'am Allah min ni'am Allah fa akhadha yahudduhum ala at-tawba min ibadati al-asnam ala at-tawajjuh ila ibadati ar-rahman jalla wa ala mu tàmbali moom Huud di leen fàttali pour ñu tuub mu leen di soññ pour ñu dem ñoom ñëpp jéggalu bàyyi jaamu xërëm jublu yàlla tabaraka wa taala wa zalla yuraqibuhum fil istighfar li yatuubu mu tàmbali ndeysaan mu sax moom huut mu leen di xemmem loo pour ñu jéggalu yàlla bàkkaar yi li ñuy bari bari bari su nit ñi jéggaloo yàlla yàlla baal leen istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara wa ya qawmi istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursilu sama alaykum midraaran wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimin loolu mu ngi nekk ci suratu Huud aya 52 Huud ne leen yéen samay nit yéen samay mbokk jéggalu leen seen boroom ngeen tuub dellu ci moom su ngeen ko defee yàlla dina wàcce xéewal yi ñu wàcc asamaan ndox mi wàcc yàlla dina leen may doole mu yokk ci doole ji ngeen amoon ngal la waaye bu leen wane ginnaaw nekk ay kàccoor bu leen wane ginnaaw nekk ay kàccoor tuub leen jéggalu leen yàlla yàlla dina leen yónnee asamaan ndox mi sotteeku suuf si nëtëx xéewal yi daal di bëri ngeen dellu ci seen borom irji'u ilayhi bittaa'ati wal istiqaama ala diinihi wa tamassuki bil imaani wa tawxiid dem leen ci yàlla topp ko ngeen jub ci seen diine ngeen moy ci jàpp yàlla gëm yàlla am tawxiid di ko kennal di ko wéetal su ngeen ko defee yàlla dina leen yónnee asamaan taw bi bari njëriñ yi daal di génn boroom xam-xam yi nee nañ ruwiya anna aadan kaana hubisa anhum almatar salasa sinin fekk jamono boobu li tax xuut wax leen loolu mooy toog na ñetti at taw wàccu ndax yàlla mere leen mu daal leen di dig loolu ne bu ngeen ko defee ndox mi dina wàcc fa fi zalika ayuha al ahbab dalilun ala anna altawba wal istigfar sababun lirrahma wa nuzuli almatar amtar tuub di wax astaghfirullah di jéggulu di dellu ci yàlla day wone ne sabab la pour yërmande yàlla wàcc pour taw wàcc bu nit ñi di jéggulu yàlla tuub ñépp dellu ci yàlla tabaraka wa taala yàlla dina leen wàcceel taw mu nekk yërmande pour ñoom mbokk yi wa yazidukum quwatan ila quwatikum ay wa yazdadukum izzan wa fakhran azzakum yàlla dina leen may teddange yàlla dina leen may ngeen bëgg kontaan ngeen di tiitaru ci seeni moroomi nawle ndax ni ngeen mel ak seen réew ni mu mel waaye yàlla dina leen yokk doole ngeen am kattan ba benn xeet dootu leen ñeme wala tatawallaw mujrimin ay la turidu amma aw adaakum ila almusirrina ala alijrami wa irtikabi alasami ngalawaay bu leen dummóoyu waxu yàlla bu leen nuur continuer ci bakkaar bu leen continuer di fàggu ay bakkaar di kerye rek di tabax rek ay dancing ay foyer ay esaat ay ay bu leen def loolu dellu leen ci yàlla arrêté leen yu bon yi ngeen di def di kerye ay modd rek moddu mbon ci naan da ngay gis ñuy kere ay naan yu araam ci lekk da ngay gis ñuy kere ay lekk yu araam ci col da ngay gis ñuy kere ay col yu araam ci tabax da ngay gis ñuy kere ay dëkkuwaay yu xaraam ci lépp da ngay gis nit ñi di kere lu bon te nag suñu kere lu bon lu pare du ñu def dara lu danañ tànn ay nit ci xeet wi solal leen ko ñu publicité ko ci télé yi publicité ko ci journaux yi bu dee lu ñuy naan la ñu wone ko bu dee lu ñuy lekk ñu wone ko bu dee lu ñuy sol ñu wone bu dee lu ñuy dëkk ñu wone bu dee lu ñuy war ñu wone ba nit ñi jóg mun koo def bu ngeen xoolee sax panneau publicité yi di ngeen ko gis ndax mbon gi ñuy wane ci mbedd yi nitu nitu xuut yi noonu lañ doon def li yëpp pour taxaw di leen ko tere ñu lànk féetéerlu lam yantafiu bi ay mawisa jëriñoowuñu bépp waar bu leen hut waar mbokk yi fii la ñuy yem insha allah ba àllarba bi di ñëw asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu